Binta Camara faatu na fi nga xam ne nag moom la teg loxo mooy Aline Badara Fall muy ki nga xam ne faat ki nga xam ne nag moo di Binta Camara ci anam yu ñaaw yéeni bi di ñu xamal ne way takk deri kay gannaaw gëstu goo xam ne daal amal nañ ko ci lépp loo xam ne nag jëm na ci mbirum Binta Camara